donc yaa ngi gis lii donc point bi bamou bamou bamou mu ba défaillance yagna vous voyez donc amna ño xamé dañuy jël risque bi il il traverse amna ño xamé tamit donc comme que fii nii moo leen gën a il traverse ici euh, amon na ay temps sax y avait agé route dañ fi doon ñëw di taxaw ñom ñoo doon euh, régler sax situation bi bu oto yi di ñëw ñu taxaw ñu ki mais fani yii on a remarqué que il y a beaucoup d'accidents yu xew fi hein parce que bon, comme les gens, des fois, ils hésitent de passer. Parce que euh, ici, c'est pas sûr. Pour des fois, c'est pas sûr. Des fois, Tu vois, donc ils, ils obligent de, de, passer ici. Et si on, si on passe ici, des fois, il y a, y, a, y a, des accidents ici, autoroute là. te il yi fii jàll tamit ñom duñu ñu tamit xamuñu amna ñoo xam ne xamaguñu ne pont bi que dafa nek ah, dafa dafa dafa yaq des fois sax euh, passagers yi dañ leen di wax que ne ñu may leen mais ñom du ñu bëgg duñ leen may dañuy forcer à kii donc lool c'est pas sûr.

autorité yi ñu ngi leen di woo ngeen ñëw gestu lii dëggantaan ndax ku xool lii xam na ni yaa problème defal leen ko balaa béy di wéy mbuus merci beaucoup à toutes et à ba beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf